koy jagleel donc voilà di sant yàlla rek xam nga euh, boo bëggee développer loo xam ne nii dafay jëm kanam nga am vision dafa am loo xam ne ay jumtukaay la yoo war a développer euh, depuis bi bi ñu juddoo mooy bi acte trois bi ñëwee euh, def lu mel lu ñu tuddee département ñu ngi doon def naam mais amul woon fu ñu sukkandiku. dañ doon def rek parce que xam nañ ne suñu mission régalienne mooy développer département bi lu ñu amee fii jël mais léegi nag ñu bëgg koo def ci gis-gis teg tënk ko ci gis-gis teg ko ci ci yoon ndax département bi am lu mu laaj dañu am département boo xam ne nii mën naa wax ni département bi ci ñi ciy dund ak ni mu toll ak ni mu représenté ci am maanaa ci mbay ci miin ci nit ak ressources humaines au niveau religieux Euh, touristique culturelle environnementale war nañ fi mën a def loo xam ne ni duñ ko def rek sur la base d'un pilotage à vue mais ñu saytu ko ba xam ni lii buñ ko defee fu ñuy commencer ak fu ñu egg loolu moo waral plan de développement départemental mënuñu ko def te bokkuñu ci ak ay maire ndax Tivaouane département la mais ñi ko composé ma ay commune maire yi ñoom ñooy yore la partie bi nga xam ne ni jëf la ñun nag li ñuy xalaat pour ñu jëfe ko ñun mooy suñu mission 80 pour mooy ci sunu mission ci xalaat bi ñoom 20 pour cent ci jëf bi mais bu ñu ko seetee beneen côté bi commune 80 pour cent mooy jëf ci goxam mais 20 pour cent stratégie loolu nag la ñu bëggoon a xayma tey ànd koog maire yi ak service yi nga xam ne ni état bi moo leen fi yónnee pour ñu jàpp ñu ci liggéey bi muy wax service déconcentré de l'État ànd koog service yi nga xam ni ñoo fi implanté privé di fi liggéey ñu déglu waxtaan bi muy waxtaan bu am njariñ parce que li may faral di wax nan ko def loo mës a gis dinañ ko waxtaane la commencé muy waxtaan ci biir mbokk waxtaan ñu ànd ci même objectif pour développer suñu département parce que li ñu bokk mënuñu koo xar ñaar voilà. yan projet ngeen gën a euh, taxaw maanaam ngeen mën a jàppale askan ci li ci man li ma ci ëppal solo avant ñuy commencé mooy njàng parce que njàng moo yoru réew réew bu la gën a développer ci àddina dafa fekk ay doomam jàng. donc nanu jàngal suñu doom yi ba pare mm-hmm. moo tax acte bi ma njëkk a posé ci sama département boole ko samay partenaire mooy euh, wut école parce que dama dikk rek ñu wax ma benn dëkk boo xam ne dañ doo toog ci ay briques di jàng man loolu rafetewul lu ma ko wax la ma njëkk am foofu laa ko def bi jàng mu weesoo nga dimbali pot niche yu ñu am muy artisanat mm-hmm. foofu tamit am na lu ñu fa def cinquante millions dallu ngaay bu ci yàlla dogalee machine yi ñu ngi ci port bi dinañ ko génne yóbbul leen ko pour ñu mën a am joŋante boobu di am bitim réew ci affaire e-, e-, exportation ñu mën ci bokk bi ci des mooy sunu département dafa am lu am solo lu fi am ci affaire yi mbay ak napp donc foofu tamit songu nañ ko yàlla dogal na am nañ partenaires yu mag yoo xam ne 961 millions dinañ ko investir ci mbay mi fii ci Mbengeen Euh, papat si lañ ko bëggoon def mais procédure yu compliqué ñu dem defi ko mbay mbéngeen pour xale yi di ci liggéey mag ñi di ci am seen xëy ñu wàññi dem bi ci kii loolu buñ ko jàppee boole kook yeneen yi ñëw nga xam ni bëri na dina am lu mu jur jur ci ci ci ci département mais li koy gën a firndeel li koy gën a amal solo mooy document boobu ñu def ñu lancé tey muy plan de développement départemental nga xam ni dañ ko jël arrimé ko ci plan bu mag boobu le président de la république def déjà mu indi mille milliards ci suñu dëkk ci suñu réew muy plan Sénégal émergent parce que loolu moom la àddina laaj soo dee doxal da koy teg fu wóor dëkk Tivaouane département dafa yaatu mais am na yoo xam ne moo gën a jam am na yoo xam ne ci digg bi la ne am na yoo xam ne mën na xaar document boobu nag bu génnee daf ñuy permettre ñu commencé ci li gën a jam dem ci li gën a yem mu jëkku ci biir may am mbégte nag ñëpp dañ ci participer maire yi nekk ci commune bi yëpp ñëw nañ fekki ko partenaire au développement yi ak partenaire stratégique yi technique yu ñëw fekk ko mooy bis bu rëy boo xam ne yàlla nañu yàlla defal ñu muurloo ko ba lu ci génn ci njariñ ñu jariñoo ko population yi gis ko ndax population yi moo ñu fi teg moom la ñuy liggéeyal